mbokki jullit yi fi teew mbokk taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziyaare ñëpp ñoo ngi sargal ñëpp ñoo ngi ñaanal ñëpp xanaa ma sàkku ci ñëpp ku nekk wax alhamdulillahi rabbil alamin waxoon naa ko biig bi ñuy tàmbali daaw ba ren wala ren ba déwén yàgg na lool lu ne xaj na fi te lu ne xew na fi yàlla sàmm ñu bàyyi ñu fi ba ñu fekkewaat bés bu tedd bii bés boo xam ne vingt quatre heures mbari gàlle àlla fii rek nga koy dégg sëñ xaadim biig ci minuit la ñu ron woon tant bi ba cinq heures du matin dix heures ñu ubbiwaat kaamil yi ak waxtaan yi ba quatorze heures gis nga léegi di sept heures lañ delsiwaat fii ba vingt ñu ñun ak yéen rek fii ci mbari gàlle àll ngir ziyaar bu rëy bi nga xam ne Cheikh Moustapha su ko defee ñu dugal suñu waa kër Alpha Ousmane waa Rumde Alpha Bayla ñooñu yàlla moo leen boole ñu may leen ñu dugg rek incha allah ñu continuer bismillah wallahi warisul qatmi adnani مزيف الكل فايداني شبتي جاني إمامي كل آية والله قرآن وني wani dani da oyu duki jani waliyaɓe ka alfa bayra tafsirani ɗum on woni ceerno mbari galle allah mbaɗini mawninen ceerno alfa bayla ceerno alfa ousmane Seex Tijaan عثمان وما وديع فعثمان من ياجي نوم الله سمي عريم من يدرى يسطر المصطفى نحال نمون شيرنا الفا بيلا تفسيرني دم من ياجي نوم الله سمي عريم mi daro yeeso ceerno mursala mi wi mon ceerno alpha bayla tafsirani ɗum mi ñaaginooma allahu mi immoorunde halifoo nelami mi wonɗa ceerno ousman mi haalana mon alpha bayla tafsiranno ne bala ñëw dinañ ci waxtaan dinañ ci duñ ci umpante dinañu wax lépp lu mu fas yéenee def programme bi ni ko war a tëre fu mu war a def bari na foo xam ne fi ne ànd nañ fa kon loolu ñépp xam ne lépp lum mu ciy def amul ci benn réeroo bu nekk suñu diggante kon ñoo ngi koy sant di ko ñaanal itam comme ni ko sëñ Murtala di ñaanale rek yal na àgg ne yoon kon ñun ñoo ngi ko koy ñaanalool suñu rakk la waaye itam suñu rakk la boo xam ne bi dafa sës ci ñun rëkk te rëkkuñu kon fa tabaarakalaa ñoo ngi koy ñaanal moom itam yal na yàlla guddal fan wi yal na yàlla barkeel ci darajay sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu moo nekkoon kàddu bi nga xam ne mi nga bàyyi ko ci xalifa bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp xanaa kon li ñuy def rek mooy ñaan su ko defee ñu tàmbalee cérémonie bi aouzu billahi samiul alim min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala ddallin allahumma inna nas'aluka 'ayshan bila bala'in wa 'amalan bila riya'in wa rizqan halalan wasi'an bila nafadin wa dinan bila hawa'in wa 'afiyatan bila mashaqqatin wa sihhatan bila maradin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 نور للنبوة لا يغبى تسارك في إدراكي ترهو القلب سير محمد سيرنا محمد وهب لنا كرما زارا يبلغنا ديار ربك قبل صيب العربي حتى ألقى من كانت محبته قبل انفتام وقبل الترك للعلم مني إليك وداعنا هناك يا نوى الحدائق والهتاء نوى العرمي سيخ تجان إنا حيارا واقفون ببابكم يا سيدي يا أحمد التجاني سيخ تجان كوخوفي هبد دايع كسق سيغنا تجاني متنا نرجو هجو لك كبالفيدان أنت الوجود وسر سر وجودهم أنت الممد للأولياء الأوام أنت الولي ابن الولي ابن الولي ابن الولي ابن الولي آمان سيس سيد عمر التيجاني سيس نجامنجي أبدا man aw ma see xurul yow li may tilim tilim yaakaar naa la tijaan ay sax tijaan sarax ma jàpp ma jàppal ma te jàppale ma te yëg ëllëg ba ma seetaan sayqa tijaan fuut ma laabal ma bil ma te yëggal ma may ci leen dajee jot naa turid waat sil Moustapha Sow sama waa ji laay war Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane yi yaay ki ci fees mbégte wi yaanu di bégle asayqi sayqa Tidiane saru yi yi xéewal yaatu tërëy ak i wilaaya ki may yow sayqu Tidiane yeneen warloon naa la yii ku la gëm am ci pas-pas bu deewee tabbir diwaan Seex Tijaan Seex Tijaan yëlleen ba tàllal na baaraamu diggam baaraam ba ca sës wax ci sa ruux ak ruuxam lu kéemaan Mustafa jàppal sunuy loxo bul ñu bàyyi nuy daanu jàppal sunuy loxo boo ñuy bàyyi nuy daanu Musa Maaso maamam jëmbat nañu ay baayam suuxat nañu Musa yaanu bégal sunu may yaa ngi baaraan day nga nu sëriñ sëkk day nga nu wéeraay kenn mënu laa ñaawal Musa yow de doy nga nu doy awlu lislaam ما شاء الله ما شاء الله لا اله الا وجعل مبنى خرن منارا وما ينسي سبان يا ماما كان يدور الله وصف محمد رسول الله لا اله Moustapha ba mela mel bantu du nga ngi mbindeef ngeen ñëpp yàllaaw Seydina Muhammad xat kaana njol Makka sallallahu laa ko manal Muhammad meleen yaa sell jër ya rafet ci Moustapha al Mujtabal Muxtaari yàllaaw Muhammad gàttu guddul xeesul ñuulul yaram wa daara tax ya mat sa jógu dox sut la yàllaaw nu màggal muhammadu rasulullah moom muhammad moom daamawul muhammadu rasulullah moom daamawul aleykum wa rahmatullah en calmani fof en en ciyaari fof en en njuuriima fof shérif mo min ɗo tawi e teddugal calmini ceerno kalifa oɗo ceerno ahmadou mbiɗen gonde ceerno amen ko ceerno ousmane ahmadou djoubayrou kanko kalifa wadde amen eɗen gonde ceerno aliou tall eyyi minen gonde ceerno houseynou minen gonde ceerno salif chef de village e ceerno mamadel oɗo taggat noon alpha ousmane e ceerno hasane e ceerno djiby oɗo délégation kalifa ceerno ousmane mamadou aya waddi amen yimin gara e nde ɗo kadi ñalande nde ko kadi ko ñalande enɗam kadi ko ñalande koddigal kadi ko ñalande islam o wi yetti allah no feewi kadi ɗum ɗo koko yiɗi e ɓernde makko ko fotina mbari galle allah kewnude ñalande fonde ni homo waɗanande ko gonnoɗo e mbari kadi ko neɗɗo allah wonɗo kadi ɓimo o dareɗo kadi ceerno ousmane winama yetta no feewi inama downo ceerno moustapha ceerno ousmane wi bonima downo ana kalifa ma e mawniraɓe ma ceerno abou e dundu o foof yo allah waɗɗo barke neɗo ñalande ko ñalande on e he e bisma on hoɓɓe ɓe ko heddi ko yetti allah wi on salmina no feewi ene on juuro ene on doono yo allah yo allah waɗɗo e jaam waɗa e kisal waɗa nasro e taysir oɗo wuro noon so neɗɗo ari e hengo ene hen jogui yakaruji ɗiɗi ko wurogo ganduɗa ko ɗaɓɓatego du'awu saabu ceerno alpha bayla gotin ana noon wa noon allah kadi galle alpha ousmane seɓe ɗo gaari ɓe jotti ɗo ko almudaɓe ɓe gonata kadi ko heddi ko ɗo hen jetti allah no feewi e ceerno moustapha ceerno wi ɗum ɗo ko weltare e makko kadi ñalaande nde hannde ko ñalaande muɗum kadi ina heen barkinoro eh, ina heen yetto allah kadi inama dowono kala kala ko wawa e e e hen hikka yo allah ko ɓuuri ɗum ko heddi weltima kadi du'onimama ko kanko jogui allah jogui jaabo yo allah jaabo kadi en jetti tawɗen ɗo fof en ciyaari fof en en joorima fof en wasalaamu aleykum wa rahmatullah wal bayta taafa bihi lillahi wa tamara mu mel ne dañ ko ne waa ki ngay wax moom wax ju rëy jooju kan la mu ne alcheikhu aljuma sa bushra li nazirihi huwa siraju liman fi wajhihi nasara sëñ Modou Gueye Sarr yaa ngi dégg wax jooju mu dem ba ci biir naan ko la zala yaxsiduhu man kaana sa watarin wa haysu yaxsiduhu yaqdi lahu lwatara cheikh ismaila ka mu dëgg pulaar ba ne ko yaa cheikhana yaa cheikhana yaa cheikhana aljuuma ba kumta wa kala ndeysaan xam ngeen ne jëmm ju tedd jooju daa bokk ci ñin tudde bés bi bi fa cheikh moustapha demee xalifa bi dafa kontaan ndax xam gi mu xam waajuram xam gi mu xam mbari ak boroom dëkk bi démb sëriñ bi yónnee na fi juróom-ñaari oto wax naa ko waxati ko délégation bu mag ay doomam porte bi ak ay seeni muqaddam fii ba dakaar wax naa teraanga ji waxati ko mu indi fi nag ak lépp lu koy defar Cheikh Moustapha loolu da cee bëgg mu ne nañ koy wax comme niñ ko waxee sànq ci ñëpp macha allah waaye xam ngeen ne ñoo ngi nii Louga la ñu bàyyi ko sëriñ bi dafa leen a yebaloon dañu agsi ci dëkk bi nag mën a leen continuer leen ngeen dem mbari gàlle allah ki jiite délégation bi mooy alhaaji Cheikh Sidi di imam ci dëkk ba waaye di doomu alhaji Hamadou Ummul di di rakku xalifa bu cheikh naa cheikh aljuma mu ngi ànd ak rakkam alhaji Malayni di doomu xalifa bi kaala gi ràppagul macha allah ñu ngi ànd ak cheikh Sidi Isma moom tam mbokk ci waa kër alhaji cheikh aljuma ñu ngi ànd ak cheikh Ahmadou moom cheikh Baba cheikh aljuma ñu ngi mu ngi ci délégation bi bi ñu ñëwee ne ki leen mooy seen muqaddam cheikh Taalibu ya cheikh taalibu ya Hammadou Baba cheikh Aljuma cheikh taalibu ya moom cheikh Hammadou moom cheikh Alhaji Baba cheikh Aljuma ki leen gàttandu mooy jëmm ju tedd ji seen dëkkandoo mooy seen muqaddam toog fii ci kër Amadou yàlla muy na Thierno Ahmadou macha allah kon délégation baa ngoog su ko defee rek ñu continuer kàddu yi fiñ ci yemoon gannaaw bi nga xam ne jox nañu kàddu waa Rumde ci kàddu Abu Bakrin mu jottali kàddu xalifa bi ñu ngi doon jàll ci ki nga xam ne mooy njebootu na Alpha Sow fekke woon 14 18 njebootam ñoo ngi nii toog ñun kiñ ci gën a xam mooy Seydina njóogu moom bu yeboo ñu koy woowe koo xam ne daa bëgg yonent bi ku tudd yonent bi xolam sedd mu teral la man de nee naa ko Seydina moom Seydina njóogu Sow moom soxna Maymunatu ndeysaan moom ay waajuram daa bokk ci ñaar ñi ñu tudde woon bés bi kon Seydina Ndiogou kaddu gaa ngoog ci turu famille bi en tant que parrain bismillah illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bismillahi rahmani rahim yasin wal qur'anul hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azim rahim litunzira qawman ma unzila aba'uhum hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun إنا جعلنا في أحلائهم أغلالا فهي الأجسام فهم مهون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأحصيناهم لا يبصرون صدق الله العظيم njoogu kóllëre googu dem na sirif ba bi mu tëddee feebar bi ko jël bi mu génne àdduna daf daf ñoo woo ba ñu ñëw ñun ñuy njabootam mu ne su génnee àdduna ci feebaram bi parce que sunu borom xamal na ko ni du jóg ci feebaram bi waaye su ci génnee àdduna na ko Amadou Binta taxawu defar ko loolu defe naa ni koo wóoluwul doo ko dénk sa bopp keroog bi mu génnee àdduna ñu yéex a wax message boobu waa Mbari préparé wu nañ bay ñëw ñu wax leen ni góor gi dafa ni bu génnee àdduna na ko Amadou Binta taxawu ñu doog a wàññeeku xaar ko mu ñëw moo ko taxaw moo ko jullee moo ko defal lépp kon su Moustapha jëlee bis bi tuddee ko ko loolu delloo battu bi ndaa xaw ma battu ci ndaali rek musafaa tamit nekk koo xam ne tey euh, mbokk am na waaye nag sunu mbokk la waaye sunu xarit la sunu rakk la du def dara ci àdduna te diisoo wu ceeg ñun waxtaan ceeg ñun loolu yàgg na euh, kon kóllëre googu su ko feddalee dafa def rek lu ko war moo tax ñu ne parrain bi benn la tey sunu kër maam Cheikh Adjouma Ba ñoo ko moom ñun dañoo moom mbir mi bokk ci di sant sunu borom bu baax ñaanal sunu yaay jëlee Dakar la jóge biig ci guddi ñëw fi mu ne médecin bi daf ne ko woon bul génn dem bruit bul def ci benn bruit mais nee na mënul ñàkk bis bi moo tax dafa ñëw ba toog mënul génn ci néeg bi mais nee na il faut mu ñëw dugg ci ëtt bii rek ndax bisu ki koy defal muy magam euh, ñaanal sunu mag gi doon jàng léegi yaasin di Abdou Karim ñoo bokk ndey baay muy sunu mag sànq bi ñuy dem la ne ma kàddu gi yow yaa koy jël ci famille bi ñi ngi ànd ak aussi sunu rakk Yaro Sow ak délégation yi nga xam ne yëpp ñu ngi ànd ak ñoom ñu jóge Louga euh, ñu ngi sant sunu borom bu baax di aussi nuyu sunu wëlëre muy euh, monsieur le maire xaadim nga xam ne lii boolewuñu sunu wëlëre bu yàgg la man ak moom ñu xamante aman fasante kóllëre di nuyu délégation bi nga xam ni tey ñun foofu la sunu borom jaareel ñuy sunu bunt ci yonent bi salaay salaam muy waa kër Cheikh Omar Foutiyou Tall euh, Thierno Macky ñu ngi lay nuyu bu baax. parce que ñun yéenay sunu bunt ci kër yonent bi salaay salaam parce que Alpha Bayla la woon ak maam Cheikh Oumar Foutiyou Tall ñun ñu ñëw nekk ak xalifa bi tey kon def ci ak sotti ci la lépp benn la Seydi ñu ngi lay nuyu bu baax Seydi taal di wax ni sunu kàddu euh, sunu xol dafa fees sunu xel dal ci lii ba nga xam ni mënuñu ci wax lu bari lu dul bokk rek sant sunu borom parce que sunu xol sedd na trop di wax ni bis bi. Euh, Moustapha Amadou Binta marqué na empreinte fii defe naa ni képp ku fi ñëw rek xëy na Moustapha jóg nga am ak moom kóllëre mais même bu la Moustapha yëgalul soo déggee ni Thierno Amadou Binta la ñuy defal bis bi daan la jaral déplacement ak dérangement nga ñëw parce que moom tolloon noonu ci bis bi kon ñun dañu jàpp ni mën nañ gàttal foofu kàddu gi parce que jarul woon ñu koy guddal comme timis baa ngi jot sax di julliwaat ci yonent bi bu baax allahumma salli ala sayyidina muhammad partout ñi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla itam yàlla defal leen jàmm eh, ñi nga xam ne lii lii programme bi ah, mi nga xam ne taxaw na c'est la première fois xëy na man itam ma daje ci nii Moustapha doon na ma ko wax xëy na programme bi day fekk ñu nekk ci yeneen xam nga waa politique moom ñoom ñun tooguñu moomuñu suñu bopp kon nag moo tax ren itam ba mu ñëwee itam woo monsieur le maire itam envoyé ko lettre itam mu ne ko nu ñu mënta def rek nañ fi yegg si parce que liñ ko duddee xalifa euh, Cheikh Aljuma ah, loolu dañu koy rafetlu bu baax di ñaan yàlla itam yàlla na fi yàgg yàgg di ko organiser fii di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan monsieur le maire itam yàlla dëgëral taxawaayam ci liggéey bi nga xam ne moom lay def ci biir famille yëpp ci biir mbokk yëpp bi dëkkandoo yëpp E, di ñaan yàlla yàlla dëgëral taxawaay bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp e, délégation bi ma àndal maa ngi ànd ak Amadou Sow di chef de village conseil municipal en même temps di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp ñu xam ne buñ fi ñëwee yàlla delloosi leen ci jàmm ak salaam e, ba ñu àgg ci seen njaboot asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf. aljuma nekk. dongre nde maanaam tund wi hayso jiidaama tariq même bu bokkul ak yow tariqa ala baaɗo yusik aljuma jiidaanema amul fii haal pulaar bu mën a wax ne cheikh aljuma du sama mbokk ɗo euh, getto ardo getto ruumde ruumde nuufle nuufle mbari mbari e ak dëkk pulaar yi wër fii yëpp ndiga baaɗo yusik aljuma amul benn haal pulaar bu fi mën a wax ne cheikh aljuma du sama mbokk sabo cheikh aljuma hoore mum cheikh aljuma boppam moom daanaka ni ni euh, ni ni jumbox mel ci nit rek laa bëgg a wax la wax nee na la mel ci xaal pulaar yi alaa amul foy dem ci sénégal bandum alaa ɗo doo fekk mbokku cheikh aljuma muxtar aysata ina wiyatno cheikh muxtar aysata daana wax ne si are bu ñëwee ci nit haysa yoɗum haysa wona taalib boo nekkul taalibe gett ardo ka en ɗam sik aljuma waaye yow yaag cheikh aljuma yéen a bokk meen walla ka duwal cheikh aljuma walla yow yaa yéen a bokk ɗum ma ñëw ci yow ɗum allah ukki ɗum ɗum loolu yàlla moo may cheikh aljuma saba loodooy ndax loodooy gett ardo ɓuri dëkk yi gën a yàgg ci tund wi ci la bokk alaama yaltaani ɗoon amul ku fa gennul alaama naataani ɗoon amul ku fa duggul tamit ɗum noon taki loolu moo tax dongre men suñu tund wi en foti haɓɓondir nañu takkoo jiiden yumma bokk ndey jiiden bokk baay fulɓe mbiya pël yi dañuy wax ne ko euh, dawaaɗi gañodiri fof nee na ay xaj lu ñu bañante bañante yoɗi nden tuɗi ngofa fowru waaye danañu ànd ñu bow bukki moom bu bukki ne tëll xaj yi même buñ juboowul danañu ànd bawndoo ko moom kon suñu tund wi ni Moustapha def nii moo baax maanaam tariixa baax na sabu ko ɗum yettinta neɗɗo ko allah moo lay yeggale ci sa boroom neɗɗo il faut jogooɗo naati ngesa nit il faut que mu am buntu bi muy duggee ci tool bi il faut ci are e wuro hono mbari boo ñëwee ci dëkk comme mbari happo nga dem ci moustapha wala ousmane wala ousmane wala hamid wala hamid wala cheikh aliou wala cheikh aliou wala cheikh abou kono noon waaye nag mbari kam ko mbari tan mbari moom mbari rek lay continuer doon noon ɗum wayi ɗum la dem ci kër diine yëpp kono enen fof ko en waaye ñun ñëpp benn la ñu tawde ndega namna seeɗo tariqa sa maayi comme ëllëg ci biir bàmmeel kenn du la wax ne ndax loo nekkoon ci tariqa koo gëmoon kenn du la ko laaj saabu naandu jooɗe kam tariqa ala heen juróomi laaj yi ñuy laaj nit ci bàmmeel moom ku nekkoon sa ban tariqa nga bokkoon kenn du la ko laaj kono ko ba seeren ɓe neeratno ala waaye nag système la boo xam ne bu baax la moom la sëriñ si doon yare seen i njaboot ba liy këfe du leen këf comme tey li mbir yi këfe gaa yi yasabu cheikhan arifal masalik wa yaqi an tariqil mahalik tan gis nga ni ko borom xam-xam bi waxee nga gis nit koo xam ne da ngay ànd ak moom mu xettali la musal la lépp loo xam ne day alak jëmmi doomu aadama loolu nag bu tariqa taqalee nit ñi woto ɗi takma gaña banda bu tarixa tax nga bañ ko xam ne bokkoog moom tarixa woto ɗi takca euh, mbaɗa banda ko bolle pooɗi bu bu mu tax nga woyofal wala nga doyadil sa mbokku taw hay on mo mbaɗata ko neɗɗo allah pourtant mën na ne kooku nga doyadil ndax bokku leen tarixa moon na am nitu yàlla la ɗum noon moustapha ni hina mbaɗa kon moustapha ni nga defa baax addoyde banda nga jëli sa mbokk teddinere am ñalaani nga terale ko bés fof en so ɗum mbaɗi bu jëpp defee nii ma en ɗam ɗam euh, wuurt mbokk gi dana dund ma jahondira ngal woota demante bi dana am eyi saabu noon hanki mawɓe mba'ano démb mag ñi noonu lañ defoon ɗum noon kon nag gaccon hakke ngeen baal ñu yo allah waat en julɓe yal nañ def ay jullit okka en juurde bal yàlla may ñu gudd fan ak wér amin ak wér okka en sutura may ñu sutura en battane mo may ñu mujj gu rafet wasalaamu aleykum kat ñàkkul loon lu mu lekk te foqalewul te daana wayafulu da am yërmande yàllaaw sayiduna muhammad yeneen day miinu waay ñàkk ya ak miskin ya ko daw diraay jirim di toog jaam ña yàllaaw di seeti waay wàpp yey jaale ji waay deele fu nu mën a xew dërëm waay deele ya faatoo foofa yàllaaw seydula muhammad seydula muhammad seydu def leen nii ñu màggal Muhammad rasulullah sayyiduna Muhammad yeneen du dóor du mer du merloo nit du gëdde du lore du xotti saatir du yàqub der fa yalaaw du wax lu dul dëgg maandoo maandu bay safarab doo gis mu wor ci dëxal lillaahi yàlla muhammadun xayrul waral muxtaari tànnu na saadibu heddiɓe fof min ɓurmi daga saadibu saabu saadu saadal halka on woni saadibu fo jiɗɗo saadal halka min ɓuuri widde ɗum min bon mi wama jante jinnama saadibu a saadal ilayi saadal wara سخيت الخريق في بحر الذنوب في لازة عيني من بحر الكرم ayit boobu soxla naa ko loolu saadal ilahi ma nga jóge Fuuta dem sanc Caameen Jolof ca ca Jolof ak Cheikh Moustapha. Masamba Kumba Thiam Kumba Thiam Bëkkëri Daraman wele Fawad wele waaye Njaay Njaay Seneba di maami jëm ji di monsieur nga xam ne sa xewar Fatma maamam moo dem ndaam jël fa yalaloo ca yalaloo moomu yalaloo si la xuj gaydel ak maam ndaag ak daaroog anta sekk sayid ak yàlla ñoo bokk ndey ak baay yàlla moomu bi mu màggee nii ñu ko jox ko maamam sàkkaaru Fatma da cee am ahmadu yàlla mu sëñ ci dëkk bii mu am ci aminta yàlla aminta màgg nu yóbbu ko kër maamam ba tey ñoom rek jox ko xëri maam kokki mu am fa xëri maam nu yóbbu ko ñoom rek jox ko tafsir muxtaar binta loo mu am fa soxna aminata loo mu tedd ma nu fal ko sëñ Tuubaa moom ci sëñ Mudu Mustafa ak sëñ Baar foofu laal nga ñëpp Moustapha fii mooy kër Sidi Alaaji Malick xanaa xamoo ne Alaaji Malick Cheikh Omar Fouti la jóge Fouta toj ko ci baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulillah jaar ci digg réew mi dem Gàmbi dem Sukkatu def Israël def Union soviétique def vingt ans dans le monde Cheikh Omar dem ziyaara ji rasulillahi makka jóge fa ziyaara kaaba ga dem Madinatul Munawwara ziyaara rasulillahi ah rasulillahi xaritam ba boole koog Cheikh Mouhamed Tidiane Al Chérif waaye Cheikh Mouhamed Tidiane mu jox ko tariixa ba mu yenu ko xanaa ko mën Cheikh Omar Fouti moo taal moo taal kër Sëñ Tuubaa moo taal kër Alaaji Maalik moo indaale biddiwee ca Makka ak Madinatul Munawwara keroog bi mu ñëwee Mbacke Bawol 1852 dafa war mag ñi sëriñ mu mën a sali toog mu ne ko yow day liy laxas sa kooku bu feeñee jamono man alaaji Cheikh Omar Foutiyou jox naa ko kaamil bii kooku mooy sëriñ Tuubaa mu feeñ ci Soxna Jaara mu baax mi doon ko wax léegi ca mbokkam mu baax mi yëkkati woon kàddu léegi doon ko wax yaakaar sama doomu baay la sëriñ bi nee na yaakaar na ni doomi baayam la moo doon wax kàddu yooyu Moustapha diine yi nga xam ne waajur ya maam ya ak jël kilifa diine ya nga xam ne maam ya ak baay ñoo àndoon démb mu sedd leen bis bi fekkoon na ñu jàngal ko waaye moom it mi ngi jàngale fekkoon na jàngal ko waaye moom Moustapha mi ngi jàngale ñu eh, mu am jeexital ba ñun ñëpp ñu dégg ko jëfe ko sëriñ bi nee na ñu ngi ñaan ñun ñëpp ñu am dégg ba dégg ko ba jëfe sëriñ bi nee na du guddal kàddu gi. ñi wax ñëpp waxaale nañu. ñi wax ñëpp waxaale nañu ko. Chérif nee na. xolam sedd na. te su xolam seddee. te su xolam seddee. xolu maamam rasulillahi sedd na. te bu seddee. te bu seddee. Eh, yàlla mi bind jaam ñi te maamam tax mu bind ñëpp. yàlla mi bind jaam ñi ci maamam tax yàlla bind jaam yëpp. ñaanalee danañu ko am. lu nu bëgg ci moom bu nu ko ñaanalee incha allah danañu ko am. Euh, benn kaddu rek laa ciy teg. sëriñ bi neena benn kàddu rek la ciy teg. mooy lii ñuy waajal. mooy lii ñuy waajal. te mu jëm ci réew mi. te mu jëm ci réew mi. nit ci réew mi di ko di ko wut ñoom ñëpp. te nit ci réew mi di ko wut ñoom ñëpp. te kenn rek moo koy am. te ki koy am mooy ki ko yàlla jox. te ki koy am mooy ki ko yàlla jox. ci lañu jëm si. ñoom ñëpp ci ñoom ñii rek lañu jëm si. nanu xam suñu bopp suñu digganteeg yàlla ak ñoom. nanu xam suñu bopp suñu digganteeg yàlla ak ñoom. yëf yi benn bis rek la. sëriñ bi nee na yëf yi benn bis képp la. am na lu ko jiitu am na lu topp ci gannaawam. am na lu ko jiitu am na lu topp ci gannaawam. te ñun du ñu tàggoo ci diine ji. te ñoom du ñu tàggoo mukk ci diine ji. du ñu tàggoo ci dëkk ji. du tàggoo mukk ci dëkk ji. tàggoo ci bokk bi. duñu tàggoo ci bokk bi. kon nanu ko bàyyi xel. kon bi nee na nanu ko bàyyi xel. ba bu ci dara yàq suñu diggante. ba ci dara yàq yàq suñu diggante. asalaamaaleykum wa rahmatulah Mourtala. balay sëriñ di ñaan. loolu moom sama kàddu la sama jëf la waaw damaa bëgg àddiyee shérif ndax danoo nekk ci yoon mu ñu teg ko fii ndax sa turu yonent bi fu mu nekk ci jataay man bu ma fa nekkee àddiyaam na ko ñëpp dajale nu fekk ma Moustapha waajurum bi nga xam ne tax moo waral bis bi muy Ceerno amadu Binta Sow yàlla yokk leeram li ngeen fi wàcc ci kaamil lépp ak ci ñaan yàlla na ko fekk barsax ak bépp jullit bu fa nekk ngeen mu yàgg ko woote euh, lii daal euh, dal nam xel euh, dana dundal diine ji dundal dëkk bi parce que mbari adresse comme ni ngeen ko waxee këru yàlla nii rek la war a mën a demee euh, kon nag ku mel ne mustafaa nag yaakaar naa moom euh, ak baaxam yaakaar naa kenn nattabliwu ko saalum saalum yi sax moom dañoo man lu léeg-léeg dañuy wax ne fa baax ak man maanaam du duñ tëb rek ne diw baax na fa baax ak man waaye bu ko maanaam baax na ci man daal mooy waxi saalum saalum mais boo ko waxee ñëpp wax ko nag loolu moom mooy lu wóor parce que léeg nga dégg ko sant Ndiaye sax ñu ne kii baax na kenn du mooy fële ne ah! mais je crois que Moustapha moom ak baaxam kenn nattabliwu ko euh, xëy na ak waajuram tam man euh, fekkuma waaye euh, ñëpp maase woon nañ ci ak baaxam ak tabeem ak yaatoom am waajur wu baax nag avantage la waaye doyul ci baax parce que en principe ku ñuy wax naan sa baax say maam baax na sa baay baax na sa yaay baax na rek te yem foofu ña ngi lay waaj a xas moom kay xenaa dañuy wax ne nii kii rek nii la mënoon a mel ku xamoon baayam ku xamoon yaayam wala ku xamoon maamam nii la mën a def parce que loolu nag euh, di ko dundal di ko continuer am na suñ euh, benn sëriñ bu ko daa wax nee na bu nee la sa baay gaynde la boo tam mel ne moom tam da war a jéem a léeg-léeg nga jéem a euh, xonqal say bët maanaam nga góor góorul daal parce que aw dayu sas parce que euh, ku baax bu sooy waajur baax soo melee nee ne rek day gaaw a feeñ comme ni koy waxee rek mu ngi mel ne tool buñ engrais soo ko bayee day gaaw a kii mais soo ko bayul tam day ñax mi da ci daal di yokku Moustapha daal leen lañ koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd musal ko ji bépp ndog lii muy def mu yàgg koo def lool Omaro, mami se dalo. cërna basir nanu nañ yàlla boole ci ñooñu ñu tedd ñooñu nga ñëw ci yeneen gaa yi nag doo wax jahannama lañ jëm de da leen di xaajaat yeneen ñaari xaaj encore nga génne ci jullit waaye moom tam léeg mu dugg ruq def yëf waaye léeg mu tuub del siwaat ci raay bi ndeysaan kooku bu ñëwaatee jàddee dugg ruq def yëf del siwaat tuub nee nañu moog ñett ñi deful woon bàkkaar ñooy tolloo martaba ñu ñi sant soo euh, léeg ñu xaw leen ko kii waaye ñi sant jàll ñuy wax ak séeréer yi waaye soo soo yëpp a baax ñoo doon teeru Cheikh omor fii ñu sant sow foo dem ci réew mi taalibey Cheikh omor xaal pulaar yi ay sow sow ñi sant sow ah demal ci dëkk yi dëkk yëpp ñi sant sow ñooy jàmbaar yi ñooñu duñ dugg ruq de am déet ana ñi sant sow ci jotaay bi ah yéen yéen a ko yo yéen a ko yor de donte maa ngi sama kanamu sëriñ yi nekk waaye tey moom ñi sant Sow rek ndax sëriñ bee leen tudd xaw leen sànni as xeer ma aw xeer bi nekk du leen dal mukk nee na même bu lee bu ñu xaw bu ñu bëggoon a dugg ruq sax léeg-léeg dañuy daal di dow delsiwaat teguwaat ci raay bi sow sow yi ñooñu aljanna rek lañ jëm alhamdulillah nee na am na ci biir nag beneen mbooloo doo wax ñëpp safaan ba lañ jëm ñooñu tam da nga leen di xaajaat ñaari xaaj nga génne ci jullit moom day moy yàlla waaye léeg-léeg mu taxaw maanaam la mu la mu la mu yàlla da ce da koy wéyal ne day mooy yàlla bu moyee yàlla buñ ko waxee dangaa def bàkkaar mu ne baax na dagan na defal loolu xam ngeen ne dëgg-dëgg la yàlla gën a bañ ngay def bàkkaar toog ci kanamu ñépp bu ñu waxee nga ne ah garaawul bàkkaar moom ku mu neex nga def wala iyaasu billah kooku moom bu faatoo kooku de doonte jullit la waaye boo moytuwul mu gis gaayee la yu soxor yi fekk tuubul moom safara rek wala iyaasu billah noonu boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci yal nañ yàlla muusal ci yii yépp nee na beneen bu mu ba ne kooku ne day mooy yàlla waaye moom du ko dagan du ko daganal bu moyee yàlla buñ ko waxee ñu wa ñu waar ko ah mu ne ah xëy na yàllaa ko dogal rek man moom dama jékki-jékki comme li Sénégal tàmm lu xew ñu ne ndogal yàlla la rek waa ji dugg ruq def lu ko neex ñu paree ñu ne ah yàllaa ko dogal ci man rek garaawul bu paree tam delluwaat ci bu subaa rek kooku bu tuubul ah, ni yàlla dana ko mbugal yàlla ndax da dana ko jéggal kooku moom mooy kii nga xam ne rek wa ufawwidu amri ilallah moom daal mooy benn waaye boo xam ne bu ñu waxee mu ne ah gars yi man daal maa ngi nii yàllaa yor sama lépp moom rek laa gëm moom laa yaakaar nee na Chérif ñaanalal jaami yàlla yi nde nit ñi sonn nañu xale yi sonn nañu rawatina mag ñi waaw ah, nee na mu ngi ñaan yàlla mu koy wax Chérif mu ñaan yàlla képp ku fi ñëw yal yàlla faj sa aajo billahi mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki àddina yéen a ngi ànd ak seen télévision Leral TV Leral point net euh, tey nag euh, niñ ko baaxoo di def noo ngi fii ci Mbari Galle Alla di dëkk bi nga xam nit euh, ni ko tuddee ci biir pulaar muy dëkkub yàlla kër yàlla moom la ñu nekk tey li fi indi tey nag mooy ñu célébrer euh, vingt sixième édition bi nga xam ni ci la ñuy teral góor gu baax góor gu tëdd euh, Assane dina ci gën a yaatu euh, comme ni nga ko jàppoo di def saabu ne rek Leral TV saa bu diina jógee day jug ànd ak moom ak fu mu ci mën a nekk ngir yaatal ko ba àdduna yëpp mën cee jot tey nag ñu ngi fii ci ndigalal ki nga xam nit mooy le directeur général waaye ci ki nga xam nit mooy le directeur régional di Babacar Diop ñu war a ñëw fii tey ci Mbari Gàlla Euh, fekkee li nga xam ni mooy vingt sixième édition bi euh, nga xam ni dañ koy defal euh, kii di sëñ Moussa ko defal ay waajuram ak ñi ko àndal ñëpp ak waa dëkk bi ñu taxaw kenn koo xam ne nag xam-xamam màcc ci dëkk bi ngir mu mën defal résumé ci dëkk bi nga xam ni histoire am taxawaayam ak nekkin bi nga xam ne àdduna yëpp war nañ ko jàng sëñ Assane ñu ngi lay nuyu di la ziar di la balu àq di la baal di la ñaanal jàmm ak tawféex ci dal bi nga xam yaa ngi ko dal ci Leral TV Leral point net ngir nag àdduna bi mën a xam mbari gàlle allah euh, tey jii édition bi di édition xew-xew bi nan la demee kan lañ koy defal ak nan la tëddee. ok aouzu billahi min asarri seytaani laaini rajim bismillahi rahmaani rahim al abdu laa yamnauhu min al wusuli illa adamu suluki wala yamnauhu min assuluki illa adamu al iradati wala yamnauhu min al iradati illa adamu tasdiqi wala yamnauhu min at illa adamu tawfiq fa man wajada tawfiqa wajada tasdiqa wa man wajada tasdiqa wajada al iradata wa man wajada al iradata wajada suluka wa man wajada suluka wajada al wusul wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashaabihi الطيبين الطاهرين الهادين الهداة الميامين ورد الله القالد عن القلب المكتوم والبرزخ المكتوم taaj al aarifina saahibi al anwaari wal fuyudaati wal fuduhaat mumiddi kulli awliya rahman cheikhina abil abbaasi ahmad ibni muhammad salim tidiane wa an jamii muqaddamihi wa xulafaihi wa ahli tariqihi wa ahbaabi wa an jamii al muminina mbokki leeral point net ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyu bi directeur bi waaye ki ñu taxawal nii macha allah di ko ziar bu baax min nañ ko lool ndax ñëwoon na fi ci gàmm gi macha allah mu laaj ma ci histoire dëkk bi macha allah waaye tamit mu laaj ma li tax li waral lii amoon fi léegi muy ziar Cene Ahmadou Binta vingt e édition bi fi amoon macha allah lan moo ko waral ñu wax ñu waxal ko ci Ahmadou Binta mënta ñàkk nit booy wax ci moom da nga wax nit ki fan la cosaano wax ay wayjuram boo waxee ay wayjuram wax dundam résumé nag laay def incha allah mais damay wax ni rek wax dundam wax ak njabootam incha allah rabbi wax kañ la fi jógee ak nan la fi nan la fi jógee. waaw moom Thierno Ahmadou Binta mi ngi juddoo fii ci Mbari ba léegi nag bu ñu nee Mbari kon dana laaj dëkk boobu mooy ban dëkk. Mbari Galla Alla ko créé en 1796 muy date bu historique boo ko sos 1796 muy date bu historique boo xam ne ci Seex Alaaji Mamadu Fuutiyu gane àddina bañ ko sosee ñetti ñoo ko ku ñuy wax ndingi li bari Lamine bari ak Mamadi bari ñoom ñoo sosoon dëkk bi bañ ko sosee nag mbari rek lañ ko doon wax boobu jamono jooju waaye nag à partir de 1848 lañ ko tàmbalee wax mbari gàlle àlla lan moo indi gàlle àlla boobu ak lu kam moo tax ñuy wax gàlle àlla bi ki tax ñuy wax gàlle àlla bi boobu tamit kooku tamit nitu yàlla la góor yàlla bu ñuy wax ceen alfahima bay laa mu soog soqi ko ca Fuuta ganee fa àdduna bàyyam jàngal ko alquran karim ba mu jógee foofu ak moom taxu ñoo jug waaye dinañ wax jaajaan ba ni mu ñëwee mbari jaar ci dëkk yu bëri nekkoon ca ndar macha allah ba mu nekkee foofu ci ndar di jàngale alquraan karim ci ndigal Seex Alaaji Umar Fuuti muy sëriñam ndax moo ko yar moo ko moo ko tarbiya moo ko tarbiya sax laay wax waaw moo ko tarbiya mu bokkoon ci mag ñi nga xam ne nag Seex Alaaji Umar Fuuti dañoo daroon Seex Alaaji Umar Fuuti moom Alfahima Bayla moog Alfahima yoroo yore mag ñi nee nañ euh, ñoo bokk benn bis bu leen Seex Umar Fuuti daal joxe ijaaza daa ijaazal kii ci suba si ijaazal kii ci ngoon si kon moom Alfahima Bayla amoon na cër loo ci Seex Alaaji Umar Fuuti ba mu dénkoon ko daara foofu ca ndar macha allah damay kii awal damay kon rek waaw moom Alpha Mbala ba koy Seex Alaaji Umar Fuuti yóbbee Ndar dénk ko foofu daara moom fii ci foofu ci Ndar ci ten jigéen mu rëdd fa wa assasa hunaaka masjidan yusamma masjid Tukulóor bam bam bam rëddee jàkk ja mag ña nekkoon defe naa ne immigration ñëpp def nañ ko hmm. yonent yàlla Muhammad mi ngi gane àdduna Makkatal Mukarram hmm. ma nga Madinatul Munawwara nekk tey maam borom Tuubaa ma nga Tuubaa hmm. Cheikh Sidi Hadj Malick Gaaya ma nit yàlla yëpp def nañ immigration moom Alfayda Baylaa tamit ba mu ganee àddina foofu ca eh, Andiyeeri ca Fuuta yàlla ko mu nekkee Ndar nag li taxoon mu jugee Ndar jaaj dëkk yu bëri ba ñëw Mbari mooy lan gouverneur bi dafa yéen woon ay nit bëgg ñu xooloon renommé ko ça da ko inquiété woon. Mm. mu nekk ñu xool kii lan lay ci lan la yëngu muy neef ay nit ñooñu am na fa 3 mois nekk ay agent secret di jàng. ne dañuy jàng te fekk jànguñu pour xool góor yi ci lan lay yëngu bañ fa amee trois mois xool dellu ca fédère euh, ci gouverneur bi ba fa nekkoon jamono jooju parce que yaakaar naa euh, te loolu moo jiitu xaw ma jamono ku fa nekkoon gouverneur nag mu delluwaat ci moom ne ko ah mag boobu de jàngal rek lay def ak diine lislaam di ñi yaakaar moom loolu ñëru ko moom mm. Alfahima Bayla gouverneur woo ko nag ne ko dama dama laa bëgg a def xaadi xaadi mooy attekat fii ci Ndar moom Alfahima Bayla moom bëggul woon addina

koo xam ne ku amoon cër ci yàlla la boo fi taxawee ku fi ñëw bu ku fi ñëw bu fi ñaanee soxlaam ku mën dem màkk bu fi ñëwee ñaan soxlaam yàlla defal ko loolu noonu hmm. moom alfahima balaa mu des fii ba fi desee mu ne ko nag defal fii sa kër daara sa sa kër sëriñu daara mooy ban kër kër goo xam ne da ngay am daara hmm. am jàkk am ay tool yoo xam ne fa ngay bay bañ a dundee ñàkk taalibe moom alfahima balaa ba mu ñëwee def loolu ndeysaan nekk ci dëkk bi tamit dëkk yëpp nag commencé mabbu ñëw boobu xam nga jamono diine diine raaroon na hmm. boo xam ñoom maam borom tubaab ñoom alaaj Maalik ñoom ñi reela dëkk bi hmm. reela réew mi salaya boobu ay ay tuuti tànk leen hmm. moom Cheikh Sadio Mat Cheikh Thierno Alpha Mbaye nekk fi nag dëkk yëpp màbb si ñëw mu jàngal leen hmm. tafsiral leen ci la tafsiral Thierno ci la ko tafsirale moom Alpha Mbaye laa ba mu ko nekk fi moom taxu ñoo jug macha allah mu bàyyi fi doomam taawam bu ñuy wax Alpha Hima Baye ñoom ñi ñëpp ma lay limal ku ne rek mënoon na moo jur yaayu Ahmadou Binta bi ñuy defal ziar bi. Mm. te ba tamit mooy nijaayu baayam tamit moom moo di mu jël mu jël doomam soxna Binta Maymuna Maymuna Binta Alpha jox ko doomam. Mm. jox ko jarbaatam muy kan muy Mamadou Yoro ñu am ci doom ji muy Alpha Hima Alpha Cerno eh, Cerno Ahmadou Binta mi waral ziar bi. Mm. arabe dañuy wax ñetti façon doom moo am dañ naan doom joo xam ne maa ikun la. ak doom joo xam ne saabixun ak doom joo xam ne laaixun dinañ doom joo xam ne maaixun mooy doom joo xam ne bu juddoo teraanga bi fi baayam defoon ay maamam def ko bu ñëwee da koy mabbal hmm. waaye kat ba naan wa isal majdul qadimu euh, wa isal majdul qadimu tawaarasat xulbuna bunuyi aw aw sakkan jadiha mu ne bëri na teraanga bu riisoon lool teraanga bu jaaroon yoon boroom teraanga bu dem bàyyi ko fi bàyyi fi njabootam njaboot bi dem suuxal teraanga boobu noonu hmm. doom bi topp mooy doom joo xam ne laa iqul la mooy doom joo xam ne fekk na baayam liggéey ay maamam liggéey mu ñëw liggéey yokk ca tuuti jéem cee yokk waaye mënta jot ay baayam ci maxaama doom ji mujj ne mooy saabixun mooy doom joo xam ne day rawante baayam ci ay maxaama ah, rawante sa bàyyi ci maxaama sax kenn du ko wax ndax tegginuwul waaye yéen ñëpp xam ngeen ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bani adnaan bu demee ba siw yenn siw yi ci moom moo tax wala boog yu bëree bëri bu ñu amee moom moo tax waaye Thierno Ahmadou Binta bi daal macha allah moom it bu ñu xamee baayam lu bëree bëri moom benn rek bu ñu ko waxoon ci moom comme ça attawaado comme ça wàcc ngi wàcc woon boppam wala boog tab gi moom Ahmadou Binta rek émission xam nga ma nee naa léegi ñi benn ci seen mën nañ ci mën nañ cee waxtaane émission hmm. moom Amadou Binta rek attawaadu li waaj doon wax euh, tajidu aksaral ulama ilman aksaruhum tawaaduun mu ne fekk naa borom xam-xam yëpp ah ñi ëpp ci borom xam-xam yi nee na dañoo oyof hmm. ñi ëpp ci borom xam-xam yi dañoo oyof moom ci na am bi mu ne ngi ni ko oyof ah lii suñ suñ sëriñ bi di wax ah, Oustaz Mohamed Ba mu naan bu tawee montagne du taax hmm. ci suuf mooy taax ñi nga xam ne nag dañoo wàcc seen bopp hmm. wàcc seen bopp lu ñëw ñoom ci suuf la leen di fekk hmm. ah yonent bi nag nee na rëy baaxul waaye am na fu ñu wax am na fu ñu wax rëy baax na fa nee boo gisee kuy rëy réeru hmm. na nga rëy réeru kawam wa iza ra'aytumul boo gisee kuy ku wàccee boppam na nga wàccee sa bopp gën koo suufee moom bi ne mu nekkoon nit koo xam ne dafa ñëw nekk ci nijaayam waaw dinaa wax waxtaan nijaayam boobu tamit macha allah muy alpha mamadou moo ko yar Alpha Mamour moom moo ko jàngal alquran moo ko yar comme li may wax nee naa la ah, olofi yi yéen olof yi ñun olof yi sax yéen olof yi laa da koy wax naan mm. ñett pour nga am ko wala ñaar pour nga am ko bañ lay coow foog nga génn sa kër baay mm-hmm. muy xam-xam ak alal mm-hmm. moom Amadou Bit nag fii ëtt bii la jàngee alquran fii ci ëtt bi la am façon teraanga bu ne fii la xam-xam bu ne dëkk bi mm-hmm. ah dañuy wax uh, innal ula adasatni waxya sadiqatun fi ma tuhaddisu anna al ba nee na innal ula adasatni nee na uh, maxaama yi wax nañ ma waxya sadiqatun fi ma tuhaddisu te lañ wax kat dëgg nga ci dëgg moo ci nekk nee na anna al izza daal fi nee nañ tedda nga mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci tux waaw ah, bi ku dul tukki doo xam fu dëkk neex hmm. ndeysaan loolu nag mu nekk loo xam ne dafa yàgg tukki lu war a am la parce que maa ngi yaakaar yaakaar na humanisme ci plan yi plan bi bokk na ci encourager les voyages hmm. n'est-ce léegi moom Ahmed Alpha Bayla moom pour jàngi hmm. génn na rek pour dem ndeysaan waxtaani ji pour pour def commerce ba mu jàngee ba pare dem commencé def commerce di commerce ba mu tàmbalee commerce bi nag da ko mujj bàyyi ndax nijaayam moo ko wane ko kaay hmm. yoreel ma daara ji mu bàyyi la mu defoon lépp nag ak ndaw ni mu neexee nga commencé wut xaalis nijaayam bàyyi loo ko wut xaalis mu ñëw yor daara ji di jàngale daara ji moom la yor mag ñi fi tey njaboot gi fi nekk yëpp seen bàyyi ndeysaan ñu bëree bëri moom Amadou Binta am na lu mu leen jàngal hmm. ku ci mel ne Thierno Ousmane Oumar am na lu ko Amadou Binta jàngal Thierno Hamid Sow man sama maam bi nekk fii Ibrahima Sow di imam bi am na lu ko am na lu ko Amadou Binta jàngal am na lu ma nettali ne ñoom Ahmadou Binta ba mu yoree daara ji dañ doon def ay ay kii ay exil. Hmm. Euh, ci kii ci bu bu nawet bi ñëwee nii. Hmm. dañ fi nekk mais bu noor bi ñëwee dañuy def exil di dem di dox seen soxla hmm. di dem am na dëkk bu ñuy wax Mbaritin daan nañ fa dem. ak dëkk bu ñu nekk bu nekk côté Fass damay faat tur dëkk bi euh, li ma lay wax nii yëpp nag dafa am émission bu ñu defoon keroog ndeysaan talaata bi jàll. Euh, talaata bi jàll ca. leeral FM non mm. astaghfirullah télé bi nekk Ngidil FM. Mm-hmm. fa lañ ko defoon te bañ ma yëgal émission bi ànd na ci guddi ay minutes lañ ma ko wax. ci laa préparé woon li may wax nii yëpp ci laa ko préparé woon. ba préparé sax léegi nii nag affaire dama bett nii. Mm-hmm. moo tax waaye Ahmad Bine daal lu ma mën a wax ci moom. Mm-hmm. mooy nit ku wàcce woon boppam man fekke ma ko. mais nettal nañ ma. nit ku wàcce woon boppam la nit ku suufe woon la nit ku doon jëriñ nit ñi waaw waaye nag tey jii nag ki fi nekk rek muy doomam Euh, du taawam sax waaye na mooy taawam bu góor mu muy mu Mouhamadou Moustapha mm. ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam yàlla yàggal ko fi yàlla àggal ne new yoon bi jaay nekk népp yoon dama digal olof nag bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wasallam mm. moo fi nekk tey œuvre euh, bi réeru ci ay loxom mm. waaw fa tegoon tànkam teg na fa tànkam am na benn mag bu koy wax naan bu ko wax tey ne ko sol sa dàllu mu baay mu jot la ëpp la yeesu la nga sol sa yëre baay mu jot la ëpp la la macha allah mu nekk fi ci dëkk bi moom it di fi dox li fi bàyyam doon dox di fi yokk na ci lu bëree bëri sax macha allah man fekk mu bàyyi mais man moom laa xam moo tax moom laay seede hmm. wax dëgg fi du ma wax man fii képp ku fi taxaw rek am na teraanga bu la defal hmm. mooy ñi ñëw ak ñi ñëwul ku képp ku mës a ñëw mbari rek hmm. wala ngay dégganteeg moom rek defal na la teraanga macha allah mu nekk nit ku tab nit ku baax nit ku suufe moom it suufe lool suufe lool te wallaahi wallaahi billaahi wallaahi man fu muy dem ñu ñooy ànd may jarbaatam laa waaye wallaahi azim du dem mukk ci jotaay mu mu bokk ci ñi war toog ci kanam du jéggi nit ñi dem ci kanam ci ginnaaw lay toog loolu nag mi ngi ko jëlee ci yonent bi yu hmm. baree bëri da koy rey ci bi te tamit euh, euh, li alaaji Mansour di wax euh, yaakaar na may fàtte bayit bi moom du may di ñaax waaw hmm. ah, wa awwalu man rabba wa awwalu man rabba allah subi rabbikum huwa ruhu wa rahman non du bayit boobu damay fàtte bayit bi mais moom yamunnu bila manin wa yan fil maasiya waaw du la may yére nga sol ba pare nga génn dox mu ne ah asande yére bee mu sol rafet na ma maa ko may mm. si Moussa tamit noonu la mel kon mi ngi lay defal teraang allah mm. nit du génn mukk ba mu ah, lii de kenn du ko xam buñ ko nit xamee rek yow ndeysaan yow yaa wax mm. kon nag man in uridu illa billah alayhi wa jërëjëf euh, Assane ci kaddu yu am solo yooyu euh, nga xam ne yëkkati na ko kaddu yu am solo euh, defal nu histoire mu nga xam ni te mu histoire wu Mbari Galle ak góor gi nga xam tey moom la ñu defal ziar bi fii mu yemook le huit ak neuf mars deux mille vingt quatre muy lu am solo loo xam ni tey kilifa yu bari ci wàll yëpp li ci gën a yéeme mooy tey murite ngi fi tijaana ngi fi xaadir laayen maanaam tarix yëpp dañ fee bokk tey ñëw nga xam ni ñoom ñëpp benn buum la ñu nasoo muy jëm fa yàlla ci barkeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu dafay lu am solo kon nag mi ngi noonu édition euh, de vingt sixième édition bi nga xam nit amoon na fii ci Mbari Galle Allah euh, Leral TV Leral point net ànd ceeg yéen te noonu la koy defee incha allah saa bu ne ci kàttanu yàlla bu fii ci barke baayam bi nga xam nit la koy defal ak Assane xam nit euh, tey historien lañ ko mën a tuddee mu wax lu bare bare ci loo xam nit mënees na ci def émission bare bare kon di ñaan yàlla baaxam mu may noonu fekkewaat ko ay déwén yu bare bari at mu ñëw dàq morom ji bëgg te it leeral TV di ak leeral point net ci directeur ba ba ci suuf ñëpp di ci ànd ak yéen incha allah jox daje incha ci beneen édition yàlla ko fekk yàlla ñu ko tal ci barkal xuraan jërë ngeen jëf